di sant nag cheikh bi nga xam ni ñu ngi koy jooy ba léegi muy suma xarit personnel muy Cheikh Béthio bëggoon ma ma bëgg ko di nuyu nag xalif généralam man nag xaw may affaire naa fekk déedéet déedéet amoo ko de ma suma gis xalif général bu jigéen te Sëriñ Tuuba sunu yaakaar àddina ak alaxira daf fee jógee bàyyi fi ay soxna kenn ci soxna yi nekkul xalif général Tuuba Sëriñ Saaliw mi nga xam ne dama ko bëgg bi koy tudd may jooy ndax dafa am def ci man personnellement mm-hmm. gisuma mu jóge fi benn soxnaam ne mooy xalifa Serigne Saliou gisuma ci benn kër diine it ab kilifa jóge fi ab soxnaam ak lu ñu baax baax baax ndax ñoo ñu jur nekk xalif général bu kooku fa jóge ne ko sama jarbaat mbay seeg baxee famille bi dafa nekk benn mais pour ñu nekk benn il faut ñu waxante dëgg ñu bàyyi ruutalante ak wax lu mënul nekk xalif ci lislaam jigéen mënu ko nekk ak lu mu baax baax doo fa bàyyi doom muy taaw keneen mën ko toog ne mooy xalifa ki fi jóge mais loolu tant que ñi réglé wuñ problème boobu dañuy diviser famille Serigne Béthio ndax xaj xel dajul tey soxna Serigne Cheikh Mataley Cheikh Mati lay jóge fi rek ñu ne non sëñ Mountakha non ba problème léegi euh, soxna sëñ Cheikh Mati lay mooy nekk xalifa général bu Touba. <laughs> ku nekk nag soxna sëriñ bi soxna cheikh bu baax boobu ku baax nga ndax cheikh bi du xam ku bon mais dañeen oo ñu topp seen xalif général yàlla ko def sëriñ Mountakha wax na ko nañ ko nangu nañ bàyyi dem kër joboote jàmbur di ko diviser ki war a jiitu mooy jiitu ñi war a topp topp ma ne sunu yaay yu baax yi dañuy topp su seen doomi kilifa yu baax yi bi jógee xam ne ñoo leen jur waaye xalifa góor lay nekk kon cheikh bi yàlla baax na bi nga nekkee mat di nga doon di la sant di la gërëm di nga yàgg ba loolu di sa baay jéppiwu la